ah bien sûr ñu ngi koy yegg bu baax comme ni ko bépp Sénégalais di yëgee chiffre d'affaires yi moom day mujj wàññeeku parce que ku doon liggéey par exemple ba deux heures du matin bu ñu la naree wàcc loo dix-neuf heures bon day xaw a métti quoi waaw te xam nga ku nekk ci location moom li gën ci moom mooy mu liggéey ci li nga xam ni da ciy génn waaw mais du coup moom nii moom métti na quoi métti na trop am na différence bu bëri moom gis nga bi nga fi taxawee ak léegi yaa ngi gis y a personne te en plus nit ñi ñu xaalis amul. waaw te du man kese ah ñëpp loolu lañ yëg ah.